salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaama ci Sen Sport 221 dañu koy tàmbaleek li nga xam ne mooy Europa League bi nga xam ne tey ji complété nañ lu aju ci huitième de finale retour yi te ñu dëgmal li nga xam ne mooy quart de finale yi xam ñu équipe ya nga xam ne ñoo cay teew fi mu ne nii gannaaw bi nga xamee ne kat gis nañu ne tey ji match yu doy waar amoon na gannaaw bi nga xamee ne gis na ci équipe bu mel ni Olympique Marseille xaw tuut mu dal di ñàkk li nga xam ne mooy tikem gannaaw bi nga xamee Villarreal gamu mu dooroon ca match aller ba 4-0 tey ji amul woon benn taxawaay bu dul gagné li nga xam ne score bu ni day ndax kat day ñoom waa Villarreal dem nañu ba benn bit képp doxoon seen diggante ak Olympique Marseille daanaka mën nañu wax ne gagné woon nañu jogante gi waaye nag ci dernier minute ci la njiit waa Olympique Marseille dal di yàq lépp lu ñu bi match bu doy waar bi nga xam am nañu ko tey ji tey ji mën nañu wax ne Villarreal moo joué match bi te it moo ko gagné Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr sax titulaire lañu woon waaye taxuloon benn yoon ñu mën a am taxawaay bu war a tax ñu dimbale seen équipe boobu di Olympique Marseille français mel na ni daal du ñoom ñoo gagné li nga xamante mooy match ale ba la ñu ci ale ba ak retour bi tey am na wuute bu baax waaye loo ci mën a dégg moom rëcc nañu ci minute yu mujj ndax ki nga xamante ni nag mooy mooy xar mi kawar kon ñoom qualifié nañu waaye nag ñu gis ne ñi Liverpool ñoom tam dal jàpp ñi Sparta Prague dal koy dóor score bu am solo gannaaw bi mu ko dóore woon ci ale ba tey ji mu dal koy dóoraat 6 dëgg-dëgg xajul ci Europa League bi voilà Liverpool équipe bu maas bi fi mu ne nii nag bokk ci favori ngir gagné li nga xam ne muy Europa League bi AS Roma moom it jàll na dañ leen di wax rek équipe bi nga xam ne qualifié nañu. waaye bokk ci itam ñi nga xamante ne ñoo waa Bayer Leverkusen bi nga xam ne voilà moom itam daal dinay jàll tey jile gannaaw bi nga xamee ne moom it xaw nañu ko dóor mu daal di def li nga xam ne mooy remontada ci minutes yu mujj yi kon équipe yi Atalanta ak Leverkusen néew gi doole yëpp toog nañu mën nañu wax ne équipe yu baax yee fi des li nga xam ne nag moo ay ci tirage au boobu dinañu ko amal ni ki suba xam ngeen ni suba la ñuy amal tirage au sort li jëm ci ligue des champions bi ci la ñuy amal laale itam li nga xam ne mooy Europa League bi voilà léegi nag ñu gis ne kon suba ku nekk di nga xam kan nga war a dajal ci li nga xam ne voilà mooy jogante yooyu lee Bayer Leverkusen nag wax nañ leen ko sànq bokk na ci équipe yi nga xam ne tey jii daal dañuy jàll ci li nga xam ne mooy quart de finale yooyu la bu ñuy xool kii di Xabi Alonso ak équipe am boobu la ñu ngi wéy di amal ay jaloore match yoo xamante nañu ko bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi dégguñu muñal tey jii ñëpp yaakaaroon nañu ne day dinañ leen dóor gannaaw bi nga xamee ne kat dawal nañu match bi ba muy bëgg a jeex voilà ñoom ñu dal di leen jiitu maanaam match bi ñuy toll ci 67 minutes ñoom waa Bayer Leverkusen dañ leen jiitu ñaari bal ci dara 2 heures la leen jiitu woon ci waaye nag bi ñu demee ba ci 72e minute Frimpong dal di marqué benn but bi ñu demee ba ci maanaam ci traditionnel bi foofu la ñu égalisé ki nga xam ne mooy Tchik moo dal di marqué ci 92e ci biir traditionnel boobu balaa ñu koy jeexal ba tey moomu dal di marqué at beneen bit moom kii di Schick voilà muy minute ñu dal di gagné kon 3 buts à 2 voilà muy remontada bu kenn mësul gis ñoom waa Bayer Leverkusen kon dal di gagné jongante gi dal di qualifié ci li nga xamante ni moo ay ci quart finale yooyu la comme ni ma leen ko waxee 37 matchs yoo xamante ni joué nañu ko bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi am nañ ci 32 dégg ko ñu muñal kenn dooragu leen gars yi mëna leen dara bu ñu xoolee téeméeri bal dal dinañu dugal bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi yu tegal juróom benn 106 but dal di nañu koy marqué ñoom waa Leverkusen 28 la ñu dal di encaissé ak ki nga xam ne mooy Alonso bi nga xam ne mën nañuy wax ni day dafay soog a tàmbali rek li nga xam ne mooy carrière am waaye daal li muy def nii ren kenn mësu ko gis bu ñu xoolee ci li moom la wax championnat ñu ngi jiitoo ñi di waa Bayern Munich lu toll ci fukki poñ waaye itam di nga ci quart de Europa League waaye itam yegg ci li nga xam ne mooy demi-finale li nga xam ne mooy Coupe d'Allemagne muy Pokal Cup lu mooy loolu le ñu gis ne ki nga xam ne mooy Habib Diallo tey ji dafa marqué li nga xam ne mooy beneen but ak équipe am boobule di Al Shabab gannaaw match bi nga xam ne tey ji amoon nañ ko seen diggante ak équipe bi ñuy wax Al Hazem ñoom nag ñoo ci am ndam ñoom waa Al Shabab ñetti bal ci dara Habib Diallo buteur la passeur décisif la maanaam moo marqué ñaareelu bit bi ba noppitam def li nga xam ne mooy passe décisif ci li nga xam ne mooy ñetteelu bit bi voilà loolu aju ci li nga xam ni mooy Saudi Pro League ki nga xamante ni nag moom la ñu wax Pape Ndiaga Yade dañ koo convoqué ak li nga xam ne mooy équipe nationale bu Mauritanie gannaaw bi nga xamee ne kat gis nañu ne xaar na xañ na équipe nationale ba sonn muy bu Sénégal bi Mauritanie dal dañu koy jël moom nag jamono bi kon fekk ji na ay mbokkam Mauritanie moom mu ngi bëgg a suñu gone yi ñu bare bari ñoo ngi fa ñoom Pape Ibnou Ba ak yeneen gone yoo xam jamono bi ñu ngi fa kon ki nga xamante ni moom la ñuy wax Pape Ndiaga Yade daal dina leen di fekk moom ancien joueur génération foot nekkoon foofu la ca Metz ren ji nag ñu dañu ko daal di able voilà muy def jaloor yu am solo mu nekk joueur bu polyvalent nag mën na jouer ailier gauche mën na jouer ailier droite mën a joué ci digg bi mën a joué sax comme latéral gauche ndax daaw gis nañu mu joué kook ñi di waa FC Metz kon dal dinay dem ca équipe nationale bu Mauritanie loolu nekk xibaar boo xamante ni am naa ci naqar lool ndax gone gi amoon naa yéene lool waaye ngir mu dal di dégg maam joué nationale bu Sénégal ndax xarañte gi nga xamante ni dal dina koy am wax nañ leen sànq ne tirage au sort Ligue des champions Europa ligue yëpp suba lañ ko war a amal ki nga xam ne mooy Luis indique dal na ci addu moom mi nga xam ne mooy tàggat équipe boobu di Paris Saint-Germain li mu dal di xam ne daal moom amul li nga xamante ni mooy préférence ci mbir moomu maanaam ban équipe daal la jëngamam am mébét ngir dajeel ak moom ci li nga xam ne mooy quart de finale yi mu ne amul benn équipe bu muy tànn ne bu sañoon ak moom lenn daal mooy li nga xam ne leer na ko moom wóor na ko ne amul benn équipe ci équipe yi fi des boo xam ne ñaan na yàlla rek tase ak Paris Saint-Germain voilà moom wóolu na équipe am bi dooleem bu baax a baax ne na daal amul benn ci équipe bi boo xam ne fi mu nii rek ñaan nga ngir dajeek équipe bu mel ni Paris Saint-Germain ku doo daje ak ñoom lii mooy li nga xam ne dal dina koy gaar waaye lu suba moom lépp dina leer ndax ci la ñuy amal li nga xam ne mooy tirage au boobu amaan nañ ci dal di dellusiwaat Real Madrid moom daal dinañuy informer li nga xamante mooy fédération France bu football xamal leen kat bu ñu yeggee ci li nga xam ne mooy Jeux olympiques yooyu nga xam mooy Copa America gannaaw ga li nga xam ne mooy Jeux olympiques yi war a ñëw mu ne duñu bàyyi benn joueur boo xamante ci équipe di Real Madrid lay jógee te ñi di waa France xëy na amoon nañu yéeney jël gone yi nga xamante jamono bi ñu ngi foofu la ci Real ku ci mel ni xelam mooy amul ci kenn ci seen seen joueurs yoo xamante ne bu ñu yeggee ci Jeux olympiques dinañ la libéré ngir nga war a mën a dem di nga maam représenté équipe nationale bu France ñoom kon dal dal nañuy teel a jël li nga xam ne seen décision te informé nañu waa France lu aju ci mbir moomulee li ñuy bañ nag mu daleen buñ sukkandiku ci yenn ci taskatu xibaar mooy li dal barça voilà ci at yi weesu ndax gis nañu dakat ki nga xamante ne moom la wax pedri dafa joué woon euro ak ñi di waa espagne euro ba jeex ñu dal di koy déng maam yenu yóbbu ko ci li nga xam ne mooy jeux olympique ya mu dal di fay def jaloor yu am solo waaye dipp mu jógee ba léegi pedri moom baaxatul mën nañu wax ne tegle ay weer di ko football sax mënatu ko yaram bi si boppam moo tas blessé rek lay def voilà jamono yi ñuy wax ak yéen mu ngi tëdd di faju loolu nag la di waa real de bañ modal dal seeni gone gannaaw bi nga xamee ne kat mën nañu wax ne bu ñuy jógee ci li nga xam ne mooy euro ba daanaka que lii di saison bi dafay tàmbali ñu war a ci Jeux olympiques yooyu la ñoom xalaatu ñu seen joueur ngir ñu dal ciy dem bu ñu sukkandiku ci taskati xibaar yi mu ngi noonu gars lii mooy li fi gënoon fes di leen wax ngeen wéy di topp Sen Sports 221